lu ne mais balaa ngaa xam li ngay teg nit ñi bu ci dara tegoo sa kaw rek nga xam ne yow mii lii ngay dundee est-ce que jarul seetaan. Mm. parce que looy teg nit ñi ay at nga ñam ci benn fan rek doyal sëkk kon di def jàmm baax na di wax jàmm baax na te damay wax ne lu kenn sañ te wax ku koy ku koy wax yaay dof fi lu kenn sañ te def ku koy def yaay dof fi tàppet yi nga doon dégg yëpp ñu ngi ci jàmm mais géré yi nga doon dégg yëpp dee nañ baatu géré la amul njëriñ mm. nit da ngay def jàmm. wax jàmm nekk si jàmm ñun lii la yéene daal li indi nag waral euh, jafe bi mooy ñun nitu sutura lan ay taalibe lan euh, danoo oyof rek modeste xaw ma oyof xaw ma lewet ba lu jël teg suñ kaw mais dëkk bi yëpp a ngi nuy mbamb Cheikh Taalif min plainte ak nangam lekkuma xaalis jàmbur waxuma nit lu bon dem ma fu bon jotewuma kenn lenn man daal toog naa toog ñuy nil ma benn euh, plainte ne ma war a wuy ji suba lii laa ci am kon ñun ay taalibe leen nag euh, dañuy am gëm yàlla gu ma sëkk ñu xëy wuy ji bi ñu xëyee wuy ji nag euh, la waral mbir yi du man sëñ Abdoulaye Diop Xaas mii toog la lan soxla jaare ko ci man comme maa lewet sama yére oyof xëy na tii tii 700 yi mètre 700 la quoi kii mètre douze mille wala vingt mille moo tax naa daal ñu jël teg lu ma neex sama kaw mais vraiment defuma dara tataal laalewuma ci lenn te bu ñu duggee ci biir lu bari dina gën a leer ko voilà comme hmm. a jot mu ngi hmm. ah, moom sëñ Abdoulaye Diop Xaas mu tëkk ci ci mbir moomu seen bi lan moo waral ñu romb la fi yow jox plainte ki nga xam ne moo di euh, Cheikh Talif mi nga xam ne yéen ñaar da ngeen di ànd lu waral loolu. waaw mooy li mu wax rek xam nga man am na ci loo xam ni peut-être comme moom lañ porte plainte moom moo ko mën a leeral ci biir. mais comme li ma expliqué xam nga mbir mi tax ñu porté ko plainte moom man maa ko sant. maa ko ni Cheikh demal defal ma lii. na am na borom lu mais loolu après laa koy wax. borom lu xonk mais moom nga defal ma lii. léegi loolu mu dem def nag ci biir loolu lañ ko porté plainte xëy na moom boo ko laajee dina la wax lii moo tax. man li ma moo tax loolu xam mbir bi lan la. Euh, mooy li ma la wax benn nga bàyyi ko xel. oyof mbubb bi wala oyof gi wala lewet gi wala jikko taalibe bi moo waroon ñu jël lu ne yan la ko xam nañ ne bu ñu yenee leen li xaas dina metti léegi ñu yan ma ko pour ñum dañ may yóbbu fenn benn weekend rek parce que dañ ma jox convocation weekend. waaw si woo fi kenn maanaam violé mhm. mhm. sa a. waaw waaw waaw léeg xam nga léeg-léeg mën nga def mais dañoo gëm ne tamit wax dëgg yàlla bi ñu demee dañoo gis ay nit yu nit mhm, macha ci yoon nit yoo xam ne vraiment boo ñëwee day mel ne yaa leen gënal seen bopp. mais foofu li ci am mooy sëñ Abdoulaye Diop dafa am benn façon taxaw bu ma taxawu. man pour wax la dëgg neuf heures yow naa xam nga waaw neuf heures yow naa non mën na doon ñeme mën na doon ragal ko mais yàkkamti lépp ngi ci biir neuf heures yow naa sa yow laa ju moo ma jël si moo ma yóbbu moo ma indi moo ma teewal man mën naa ne la noobu laa fa rek ndax defuma waxuma comme moom la soxla te xam na li waral mbir yi li ko waral mu gudd mu gàtt hmm. dafa am benn animateur hmm. xawma journaliste xawma inspecteur ma présentateur ma nettalikat xawma waxkat ma lan boo xam ne que xam naa ko lu mat fukki at te jàmm leen seq ba may taalif ci làmb yi bu ma gisee daf may conseil defal lii ak lii ak lii man ku may critiquer ñu bari boo leen critiquer dañuy mer man boo may critiquer damay jël pour man a xam ne li ngay wax du sa njëriñ sama njëriñ la loolu la ñu seqoon muy rafet bu ma indilee convocation ma dem wuyu ji xam ne lii lan la bi ñu demee nag xaas taxaw ma lu mat li indi mbir bi nag dëgg mooy dafa am benn femme bu woo sëñ Abdoulaye Diop xaas yéen ñëpp ngeen seetaan fi parce que mënuma àdduna bi yëpp par kenn ku ne ma wax la lii la metti quoi sama baat baa ngi nii dee nelaw yu doyul nga ànd ak euh, waaw yaa ma gën a xam mm. xaas. jotu ko mu insisté insisté jotu ko mu ne ko c'est urgent li ma lay doyee sa soxla la xaas jël ko xaas mu ne ko dafa am benn ku góor ku ni wax diw te ñëpp xam ko moo ma jox benn butéel fay nañ ko ci nag 10 million pour butéel bi bu ko sangoo dem gisi sëñ Abdoulaye Diop xaas àddinaam day yàqu mbooloo ma jeex mu fay du yor da maam daal du bëgg daal mu torox ci gàttal daal torox loolu mooy kii bi femme bi nag bi mu ko waxee loolu mu ne man sëñ Ablaye loolu duma ko def ndax ñëw naa parcelle nga faj ma ba mu wér kon lii duma ko seetaan lii moo indi mbir bi xaas woowaat ko mu confirmer ba mu man ñetti yoon ñu léegi nag xaas jël ay yoonam nag pour dox fi mu war a dox. Mhm. ne ko nag dañu war a gisi ko ci yoon ñun tamit ñu toog ñu ne ko sëñ bi euh, dina màtteem du màtte d' accord d' na li la yàlla may. mais lu xaw a lëndam yow. ñu ànd ak Mara Niass mu sëñ Saaliw moo ki solul xong léegi loolu di ku baax ànd ak mbooloo pour wane loolu du ay affaire nettaleeg ñaari nit de ñu dem gisi ji ndaw si ndaw si man li ma ci am mooy man maa ko war a enregistré la ci xew pour transférer ko sëñ Abdoulaye Diop xaas moo xam ne lii moo fa xew comme man maay laaj am na benn policier bu fa nekk kaneen a nga fa ñëpp di filmer sama voix mooy génn mooy dem fu ne ku ne bu filmer mën naa tasaare mu dem fu ne léegi benn soppeem sëñ Abdoulaye Diop xaas comme nit ki boo waxoon ci Modou Lo am ko la attaqué nga wax ci Balla Gaye am ko la attaqué nga wax ci diw ko la attaqué yooyu noonu la mel. comme xaas dafa yaatu ginnaaw am ku nekk Amérique jël benn vidéo attaqué kooku dal ci kawam wax lu ko neex bi mu waxee li muy wax ci biir audio yooyu nga xam ñu baree doon filmer ku ne mën naa envoyé xaw ma fu ci jotee. ñu envoyé loolu ñu dégg ma ci may wax rek ñu ne kon seex a doon kii buñ soxlaa ndaw si ci seex la ni jaar ak yi lii moo indi plant bi mais pour wax la daal ñaanuma médiation ñaanuma ndimbal pour ñu génn ma fenn tooñu ma defuma lenn te man seet maa ngi ni toog kon bu doon def naa ah kama fa yóbbu daal laaj leen ko ba xam lan laa ko def mbax am na lu mën a wax maa ngi ni si jàmm na ñëpp dalal seen xel kenn laa deful dara ku soxla xaas la di ko wut di ko jaar ci man te boo jaaree ci man moom bëgg boo nu bëggee yàq sax da ñu gën a defaral mu gën a baax parce que yi ci ubbeeku te yi war a feeñ dafa bari parce que 10 millions lan fay femme bi de. moom la wax 10 millions pour yàq xaas te xaas léeg mu may lu ëpp 10 millions kër wala oto wala nangam. kon nit ñi nañ jàpp ne gëm yàlla nag dafa jot. nangu dogalu yàlla dafa jot ku yàlla teral ku ko bëgg a toroxal. boo toroxul moo gën nga torox moo gën a yomb quoi nan rafetal yéen yi mais kenn ku ne sa jikko ngay demee rek de. Euh, wax nañ soir bi ak ni mu demee.